sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala mabuus wala salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndam laaj bi laaj bu am solo la laaj bu ñu war a faral di wax la dama tàmbali maa ngi nuyu sëñ Cheikh sama turandoo la Cheikh Obal la na ko nuyu baax baax di doom di lépp rek di xarit di ko sant bu baax nag ci taxawaay yi nga xam ne mi ngi koy taxaw fii ci réew mi ndax dañuy wax ne euh, dara boo ci nekkee war nga koy dundal te bañ koy dunde mën na koy dundal moom dundal gi mooy li weesu démb rek firnde la ci loo xam ne lu jara bàyyi xel la ndax euh, dajale mbooloo ngir yàlla dajale mbooloo ngir wax ci yàlla dajale booloo ngir jëf ci yàlla lu am solo la ñaan sa borom rek mu yàgg koy def at yu bari bëri ñu fekk ko te ñu ci dajale rek ngërëmal Cheikh Mouhamadou Amine mi ngi xam ne moo tax ma koy def maa ngi koy dem ne ko day eh, eh, Cheikh Mouhamadou Amine day doon doomi Sëñ Touba taxul mu am lu mel nii xamoon ne Sëñ Touba ko jur moo tax dafa wute doomi Sëñ Touba la kon naa ko ndamoo ndax ma am lu mel nii déedéet waaye xamoon ne Sëñ Touba ko Sëñ Touba Sëñ Touba waajuram moo tax xam ne suñu toog si waajur nag moo tax mooy waral lépp loo xam ne lu nit war a nekk lu baax la nga dox jëm ca xeeñtu ko ba am ko kon yëg ni moom la moo gën boo moo gën ne xam ne moom la boobu nag yëgoon na ne suñu tubaay ma baajuram moo tax mu defoon mel ba ba tey yii euh, mu mel ni mel su loolu jàllee ñoo ngi nuyu ñëpp di di bokk taalibe yi di leen siyaara di ñaan sama borom mu def at yu baree bëree bëri yu koy fekke te di ko ànd waaw laaj bi am na solo mooy lu waral ñëw gi ñëw gi mën naa ne euh, lu ñuy topp la tànk ñuy topp tànk ñuy topp rek la ndax yaakaar naa ne kilifa yi tàmbalee ci euh, Cheikh Mahamad Cheikh Madou Fadal waaw ndax sëriñ Fallu mës naa yónni wala bokk yebal Cheikh Abdoul Ahad ca Côte mu ne ma ko ji bokk ya lu ko jiitu sëñ Ibrahima moom Sal Xadim Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne te nag moo ubbi lii tey lii mën am tànk yi ñoo ndox tànk yooyee tànk yi ko la tànk yi li ñuy wax rek ne bu nit amee ab denc denc boo xam ne da war saa su ne nga di ko nemmeeku ba xam denc baa ngay ñoŋ wala déet kon war na foo toll nga di fa dem di xam denc mënum demee. kon bu fekkee ne dikk bi téeméer la juróom-ñeent fukki juróom-ñeent loolu war a doon kon bu ñu ñëwee war nañoo nemmeeku xam lu ñu nekkee war nañoo nemmeeku xam lu ñuy doxe war nañoo nemmeeku xam lu fi nekkee kon loolu mooy baasub dikk bi bi ñëwee alhamdulilah fekk nañ fi ko mel ni Serigne Sy ni ma ko waxee léegi rek mu nekk ca nga xam ne euh, digaloon nañ ko maam digaloon na ko mu nekk ca di ci góorgóorlu loolee ànd ci ak bokk taalibe yi Euh, loolu mooy euh, tànk yi mooy tànk yi may wax rek ne euh, ba ñu ñëwee tamit dox nañ ci réew mi dox nañ ci réew mi fekkee ne question bi ñan ñetti ñetti ñetti laaj la bu njëkk yi moom mooy loolu mooy nemmeeku si bokk yi nga xam ne ab denc la boo xam ne bi siñ bee ko dencoon ñu ñëw xool nu ngeen nekkee ak waxtaan ak yéen ndax damay wax démb ne ab daje baax na ndax daje islam da ko fonk fonk gi mooy boo xoolee mu mu mu mu jël julli juróom bu nekk mën ne nga def si jàkk ji nag moo gën kër ga bëgg ñu daje rek suñu dajee xam jafe-jafe yi quartier bi li fi nekk bu ñu demee ba ca ajjuma ja ñu tase sa jumaa ja tase da birum dëkk bi waxtaane ko su at mi jeexee ñu si màkka kon daje baax na waaw kon na daje boobu nag mënta am saa su ne ci ñun ñu tànn wala bokk nit ñi jóg seet leen bu ne xam lañ nekkee lañ ci mën a wax ak ñoom ñu teg leen wax leen ci lañ ci xam ndax ñaari jullit bu tasee kat wax nañ ko wa ku nekk naa wax sa morom lam xam ca euh, lay doxal kon moo tax euh, ñu ànd ñu ànd ak yéen ñëw def ci loolu ñaan sama borom rek mu tànk yooyu nga xam ne am nañ jublu gi yàlla jàppal nañ ko ba mën koo tax nañ ko bëggee ak Seex Xaadim waaw maanaam nañ ko waxee Brésil fi Argentine lu ëpp ay ay ndaw ñoom ñoo fi ëppee ñàkkul nii li nga ngi teew ci xew-xew yi nga xam ñu ngi fee wuyee si wala it ñu lay seet si wala nga dox daje ak ñoom ci ci mbedd ni nga leen fekk nii ndax nekk na loo xam ne dal na sa xel. alhamdulilah waaw ni ma fekkee dal xel ndax euh, li ñuy wax rek ne euh, baas wala bokk mbir bu jutoo ci yow da am lu bàyyi xel da am lu bàyyi xel ba tax lu bari da nga ko bàyyi da nga ko moom da nga ko moytandiku. du ñàkk nag ay pakk-pakk waaye dama wax dem fii de lu am solo leen nun dey sëriñ bi layaloon nañu yàlla ci yàlla waxoon ne ko ne dey seen cër yi lacc-lacc jëme ci ak mooy la waaye xol yi doo bàyyi mukk waaye bu li dañuy wax na dañuy wax ne euh, nit ki bu la bu la layalee ba noppi nag waaye na nga fexe la dam layal nga bëccaa nga nga nga bëccaa dellu loolu moo di lan ndaw dafa am nu mel ndaw dafa am nu mel am na euh, wax yu ñu wax yu bëri bëri waaye ndaw dafa am doxin woo xam ne da koo baaxoo waaye sama dogal na fekkee ne la njëkk ci yow la njëkk ci yow doon na lañ bëgg loolu mooy feeñ ci ay ay cër euh, ñëw nañ fekk nañ fi nit ñi ñi ngi wax ak ñoom li ñuy wax ñoom nag leen rek la dama la waxoon dem ne leen sëñ Tuubaa daa am lu mu bëgg daa am fu mu koy wute te xam ne fu mu daa am fu fu fu fu mu jógee. ku am bëgg dara nag da xam fa nga jóge ak xam fa nga jëm sëñ bi xamoon na fa mu jëm xamoon na fa mu koy wute xam na fa mu koy amee ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci moom ba mu ñëwee ba am ko nañ fexe ba xam ne li ñu am lépp ci moom la ko moom lay jëm nañ jëm ci moom bu wutee ci moom di jóge ci moom suñ ko defee rek liñ bëgg dañ ko am ñaareel ba mooy da wax ne lépp loo xam ne lépp loo xam ne. Euh, bañ nga wala bokk soo jógoon jëm seelu xadim doo ko def na nga fexe ba bañ koo def nga nekk xam ne kat foo mën a nekk ki nga jàkkaaroon na nga xam ne am sëñ Tuubaa la maanaam keroog leen dafa am loo xam ne sëñ bi ko defal mooy lan am dafa am ku ma ko posé benn question ni ma man de dafa am lu ma jaaxal ma ne ko lan la mu ne ma tubaab yi tubaab yi dañ ñoo raw te ñu ëpp xel waaw ma ne ko loolu du dara tubaab yi day ne ko benn sénégalais mën naa yorub réew ci waxam su waxee mu xalaatam mën naa du mën naa yorub réew te du yàqu waaye mbooloom sénégalais bu ñu yorub réew mu yàqu wala africain laa bëgg wax sax sénégalais wala CFA am ne ko benn tubaab am xelam mënta yor ab kër sax xuma ak yor ab réew te ñu ñoom tubaab bu ñu dajalooyee dafa am réew. mu loolu ma jaaxal ma ko la jaaxal du leen simple la ne ko. benn xalaatub sénégalais boobu nga xam ne mën naa yorum réew buñ dajalooyee ba tënk dara ci seen biir seen biir nekk benn benn baat boobu bu génnee ku génn nga ah gars wax rek doxal sa bopp moo tax lu bañ tëral du mën a dox tubaab yi nag buñ àndee ñoom dong kenn ki mën doxal bu dajaloo am benn xel xel moomee luñ wéet wéet moom la ñu doxal moo tax ñu mën a dem loolu moo waral développement bi doom Afrique di gi jëm gannaaw ñee dem ku nekk sa xelum bopp ngay doxee te xelum bopp yàlla mi ñu moom yàlla mi ñu bind. moom ñu wàcc alxuraan dama ne may tax tax udulay fa lakum zalimun képp kooku jalgati atte bi yàlla ndax yàlla dañ loo xam xam nañu boole ñu tënk tënkuñu ci benn atte atte boobu ñu tënk nag boo ko jalgatee nangam ko yow hmm? kon atte yàlla boo ci àndee boo ci nekkee euh, yàlla day wax naan nekk benn wax bi la jameen waxta fax daxaloo nekk benn googu mooy tax ñu man a ànd dara waaye bu ku nekk toogee si daa ne ah gars wax rek dox sa bopp la ngay dox jub mën naa jub kenn dox lu jub te fukki dëgg mën taam boo tee boo gisee ci fiqhul islaam yi boo dee boo mëtul daraja ittihaad na nga nekk mu taxalit boo xam ne kii da ngay roy ci kenn te boole ñaari ngir mënta nekk lu tax ñu la ko wax di ñaan la ngiir dañoo bëri li ñu ci xam mooy euh, imaam Saafi imaam Abu Hanifata Abu euh, Anbal ak Malik yow mi nekk ci Malik amoo droit jëfandikoo Saafi yi lu ko waral déedéet lenn lu ndax ñi ay dañoo jortu te ñaari njortu mënta ànd kon ande ko la nekk aw aw leneen aw leneen mooy lii rek menn xalaat boobu nga xam ne am nga ko yow sa morom am ko ngeen àndoon toog di fukki nit ngeen tax ba am benn xalaat boo xam ne ñu ñëpp ko bokk nga génn vélo xalaat ba kay vélo kay ko du ngeen dem ndax ku nekk la nga xalaat ngay demee tubaab bi nag bu jëlee loi boobu bu ñëwee moom la ci këram moom dox ci mbedd bi moo tax lu ñu ànd dem waaye ñun nag yàlla dimbali nañu ba loolu am nañ yoon wuñ ko mën a am ñun ba mën ko résoudre mooy lan tey jii Cheikh Mountakha yàlla saa borom yàggal te ñu def si su wootee woon ne képp ku ab murid na fekk Touba kenn du si àll bi kon benn baat ba na waaye nuñ koy àndi nag mooy suñu problème ñu xam ne ko yàlla def nañu benn baat boobu yàlla def ñu benn loi boobu ba tax na loi boobu bu jógee ñëpp ànd ci ma yàlla nañ ko doxal suñu diggante moo ñu manqué ku nekk yëg ne ki nga jàkkaarlool seen sañ Muntaxa la ki nga jàkkaarlool suñ sëñ Touba la ba la ngay wax ak moom doon loo xam ko fas ba mu nekk loolu moo ñu daayira yi dama wax démb ni daayira ñett fay nekk ñett fay nekk ci mbooloo yi kenn ki day ñëw ngir yàlla moo taxoon la suñu seex Mbàkke la ñu xam moo créé woon daayira kooku ñëw ngir yàlla rekk a taxum jóg bu ñëw yàlla bu ñëwee ma ngi ci xasee de ma ngi ci alxuraan ba ma ngay déglu wax yi ñay war a wax ñay war a wax ña koy déglu seen wax lañ wax bu ci xamee lu mu ci yow war a manqué ci moom mu jéem ko matali ko kooku ma ngi ciy mooy ñëw ci daayira ba ka ca des daa dëkk ak ñoom moom daayira ñu ko waaye ne ànd ak gars yi rek xumbali daayira ba kooku bu ñëwee du fa wax du fa def ka ca toppaan nag moom mooy ki nga xam ne moom ndam la bëgg wala bokk ak ndomb la bëgg suñ ko joxul rek mu kii ñaar ñu mujj yi nag ñoom bu ñu génnee daayira bi commencé waxtaan ci daayira bi gars yi liñ def gars yi liñ def gars yi liñ def te loolu du defal daayira ñooñu ñoo ñooñu nga xam ne ñooy gàllankoor yàlla nañ sa borom boole ci ñu njëkk ñi nga xam ne li leen tax a nag daayira boobee lañ fay wax lañ fay def mooy li waxoon ci julli ga rek dajaloo fa xam lan mooy suñuy machakil mooy suñuy problème ñu mën ko ànd waxtaane ko defar ko te bàyyi nag waxi kër yi alaj baara mas naa wax na ma de cheikh man du ma wax ci wax ci suuf lu ñu wax ci kër gi ci mbooloo mi soo amee looy wax na nga ko wax ci mbooloo ma ne kat nangam man ma neexuma nangam nangam nangam ñu dajale baat boobee ma waxoon léegi rek def ko muy benn baat nga dund ko ci kër dund ko ci mbedd mi dund ko ci daayira bi suñ bëgg dañ taxaw loolu taxaw taxaw loolu mooy indi ñàkk ñàkk a ànd googu wala boog euh, ñetti mbooloo yooyu kii ma njëkk a wax moom bu njëloon a addiya addiya jox ko jox la ko yow mi si daam jox jox joxoon si Muntaxa kooku moom xaatoo joxoon ko wala joxe ko gëm na ne Sëñ Tuubaa ko boo demee boo ñëwee laaj ab leetar naan la lu tax si Muntaxa bi lu jox ma ndax leetar bi ñuy laaj sëñ bi mu koy bind ñàkk a la ndax yow mi koy bon tax na ko tax waaye bu fekkee ne moom mi nga xam ne moom mi nga xam ne moo ñëw ci daayira bi ngir daayira ngir sëñ Tuubaa rek moom xalaatul ne bu ne am rek sëñ Tuubaa la ko jox ba ñu mën ñi ñi ñun ñi ñii di waxee yow ak Seexu Baa di waxee ak keneen ku mën doon ndax li ngeen jox sëñ Tuubaa ko nangu déet nga ko jox di tax boofu moo kon da nga yëg nga yëg ne boo ko joxee Seexu Baa keneen ku mën doon rek sëñ Tuubaa koy nangu na nga ko jëmale sa moroomum taalibe sa mbokkum taalibe moo xam ne mii yéen bokk nekk ci dëkk bi yéen a bokk daayira bi nga jëlal ko suñ ko defee wóoluwante am nañ seen benn lu ngeen bëgg da nga mën a dem ndax yàlla day nekk ci biir waaye bu ngeen tàqalikoo ku nekk gëm na sa bopp sa morom ji moom nangam nangam su boobaa sa morom génn ci Sëriñ Tuubaa sa loxoom da ngeen dem ba sonn te du sotti te yàlla dimbal leen te waxtu suuf ñaar encore yàlla dimbal leen ba ngeen dem ba am fu ngeen wax ne fu ngeen wax ne Sëriñ Tuubaa jënd nañ ko roppi pàkk la waaw ngeen bëgg koo def kër na wax de mu ne. liggéey sëñ tubaa amul mu def dese laaxiya waxi sëñ tubaa amul mu dese laaxiya maanaam li muy wax amul euh, date expire date nga xam ne day wa wax joo xam ne di ñaankat wax ji fii la yem sëñ Tuubaa yi la waxoon amul loolu sama borom may na ko lum ñaan yàlla lu ñu tudd ko ca su ko nangoo loolu ci lay bokk waxoon na Cheikh Moussa Sëñ Fallu ne kat mbir liggéey baa ngi noonu ku ñëw ñu fekk ku dem nañu ci bàyyi mu jumaa ji ak ay bay bay ba waxoon ni yàlla na nga faj aajoo yi ñu jóg di ma liggéeyal waxaat daan ne jumaa ji na nga jéggal ñi ko tabax na nga jéggal ñi leen ko digal ñi leen jéggal ñi leen jàppale ba liggéey ba a am binaa la waxoon rek binaa araf ya kon binaa boobu nañ ko boole ko nañ ko def bi bi bi ko def maanaam taxsiis ci ci jumaa yi Tuubaa dong lépp lu suñu Tuubaa tax a jóg nañ ci ñaari bay yu samb ko fa mooy liggéey ba xidma nga koy tuddee liggéey Sëñ Tuubaa ñu koy ko jëlee jàmbax ko ca danañ ci am Sëñ Tuubaa dañ ko bëggee ma jël ko nag man ak keneen ku mel ni man nekkat kon liggéey bu ñu liggéey Sëñ Tuubaa ci bi bu mën doon rek ci la wax ja ma waxoon Cheikh Moustapha ak Sëñ Fallu ne kon liggéey bu ñu liggéey Sëñ Tuubaa mën na caa nekk kon yow nga xam ne yaa nekk ci arxatit ak fenn fa mën nekk ci àdduna fexe ba feeñ ca ngir am ca wax jooju ma wax naa ne la wax Sëñ Tuubaa kon amul dat bu naan cere yam wala bu fii loolu leen doon wax daa ñaan boromam wax di awaa ji li si daamoo euh, fexe di xam lu ma laa mu la waxoon hmm? na ngeen na nga ñi may liggéeyal tey na ngeen léegi suñu tubaab ba jënd kër moo xoon ne yàlla na nga yërëm wax fi li man banaw bi daa rafet na nga jéggal ñi nga xam ne ñoo tabax sama tabax bi doolu ci ne woo man amarahum te waat man aanahum ñi ngeen ko digal ak ñi nga nekk mais yéen tamit xet ma ngeen nekk te waxoon na na nga fa waxaat lii kon seen binaa boobu na ngeen kon tabax boobu nag fexe ba mu nekk tabax bi la mag ñi kat mag ñi gënuñu de ndax na leen ndaw gënuñu ndax ñoo suñu ñooñu jur hmm? gën ñoo xam suñu tubaab ñu gënee gën ñoo xam suñu tubaab nag mooy xam fa ñu teg suñu tubaab ni ñu koy doxalee la waxoon ci ab na muy doonee moo am léegi yëpp ba mu ko xam nag bi bul weranteeg sëñ bi te bul ixtiraat mooy lan sëñ bi wax ma nag ma ne si wër ko waxee nii mag ñi daawuñ déglu sa sëñ bi sax Cheikh Ibrahima ñu wax nii bu daan dem sëñ bi Cheikh Khadim bu sëñ bi dañuy wax ne da daan ànd ak nit bu nekk ñëwee kooku moo ko traduire la muy wax kon nañu ànd ak sëñ bi lañ xamut ñun nañu ànd ak sëñ bi lañ xamut ñun waaye bu nga xamee nag lañ amoon jombuñu ta buñ nekkat buñ ne. mag ñi ña nga woon Sénégal di liggéey sëñ bi mm-hmm. inna abdullah waasix la yàlla waxoon kon yàlla fu ma mën di nekk ci àdduna mm-hmm. foo man di nekk ci àdduna ba fi doon nii koo fi laa fa nekk daan man Touba Argentine la nekk lu tax Touba Argentine kon mm-hmm. kon yaa ngi Touba Argentine kon nangu ne kon jumaa Argentine kon mooy jumaa mooy jumaa Touba <laughs> am déet kon nañ gëm suñu bopp nañ gëm suñu bopp suñ ko defee rek liñ bëgg seen dañ ko am te li siñ bëgg ci ñun dana ko am li siñ bëgg ci ñun nag yomb la ñu am liñ bëgg rek ñu fañ jëm ñu ñu ñu ñu am liñ bëgg dong suñ bëgg ñun ndax ku nekk sëñ Tuubaa bi nga ci ñoom seen la fi indi du indi sëñ Tuubaa yaa ñëw ne ko maa ngi nii sama maa ngi nii maa ngi ne koo ko wax nag da ngaa war mel néew bu ñu sang moo lay fu mu lay jëmee ak lam lay wax te loolu nangu nañ ko ñun nangu nañ ko waaye dañ ko nangul suñu diggante nangu nañ Seex Muntaxa nangu nañ Seex Seex Seex Obal fi jóg yàggul hmm? kon nangu nañ leen ko ndax lu ñu mësaan wax ñu ne Sise Moxtaar nangam nangam daal di wax lañ bëgg lépp bu mee lu wax ñu ne ñu mel ni euh, ay néew te ñu ñaar bu ñu jàkkaarloo maa yow duñ ko nangu suñu bopp loolu moo ñu dese suñ ko defee luñ bëgg am ko te loolu mooy lubb bi nga xam ne moom suñu doon def nett naa ne tegoon na ab ndam boo xam ne bi def ci benn ndogu ndawal bëggoon seet ba xam test mag ñi mag ñi nagoo ndagal woo dañoo wax ne dañ ko jokkanti seen biir di ko jokkanti seen biir ba ba ñam wa ba ñam wa jeex doog ba des fa sëñ bi ñëw na bi gis gis na kat lekk nañ ñam waaye dab waa ko des mu ne leen tax leen lii ku ne jàpp ne sa morom lekkoon na ko yéen gi yéen doon seen jàmm seen biir ku nekk jàpp ne sa morom bu fi nekkee bu lekkee lii kat dëgëraay ba mën nga liggéey Sëñ Tuubaa jàppante bi moo ñu xam ne sori Tuubaa taxuta euh, bañ a doon waa Tuubaa waaye itam jege Tuubaa dam taxu nag ndax boo nekkee Tuubaa dëkk ci biir jumaa yi te du jëfoo la sëñ bay digle bokkoo ci waa sëñ bi du sant du mbokk jikko la jikko joo ko may nag Sëñ Fall wax na ko Cheikh Moussa wax na ko sëñ bi ne woon juruma kenn du ma bàyyi kenn du ma nijaay kenn du ma naan kenn jikko laa fi nekk jikko jikko jooju nag murid bu yaakaar ne ku bëgg doon Sëñ Tuubaa moomee da nga jikko joo nga yéem a tànn jëmmi sa mbokku taalibe bi xam ne mooy Sëñ Tuubaa mooy Sëñ Tuubaa ci yow wax naa ko démb Cheikh Moussa Sëñ Fall bi muy bi muy xutba ba sëñ Bassirou dugg si mu dagg xutba ga mag ñi eh, ñëw na Moussa Bassirou daal di ñëw kii mu leen déedéet doomi Sëñ Tuubaa amul wutaay ci àdduna doom doomi Sëñ Tuubaa la amoon fii nii nekk waaye sëñ Basiru mi nga xam ne nee na jumaa jee ko tàgge moo tax mu ne doo si amul ma sagale ko loolu xoolal fañu àgg sëñ Tuubaa ci àgg sëñ Tuubaa ak nam nam teg sëñ Basiru teg ko muy léppam muy ay bëtam léppam kon bokk googu ñu àndoon ñaar ñaar xool mu Moussa sëñ Fallu ñu meloon wax nañ ma ne ne bu ñaan ñëw sax ay yére Cheikh Moussa buy buy ñëw mbubb li sëñ Moussa la sol lay lay ñëw toll lay sol lay sol ngir de ñoom lañ amoon bu ñu ko amul tamit dañu àgg fa jëmoon kon nañ xam ne liggéey sëñ Tuubaa du nekk Touba dong foo mat nekk gëm na suñu Touba ngi ci kanam da nga ci am bëgg euh, ñu bëgg baax defe naa kàddu yooyu taalibe yi daañu ko dégg te yoon la woo xam ni buñ ci jaaree mooy defaruk jamono waaye it mooy doonu sunu defaru ci sëriñ bi ñu ngi koy tudd ci jafe-jafe yi faral di am li xew Italie yàggul démb moo ci mujj Espagne fii nii Argentine am na fi senegal yi di dund ay ay jafe-jafe doofu daañu fi sàkk ay kàddu yoo xam ne rek ci taalibe yi lay jëm ci ñu gën a moytu ak gën a defar seen nekkin ak ak ak nasaraan yi waaye it suñu njiiti réew yi ñu gën ñu bàyyi xel fi ñu nekk yaakaar naa fi yàgg nañ fi te mosuñu fi gis benn koo xam ne suñu njiit ko xam ne ñëw na fi négocier ak suñu état yi nekk fii wala dara loolu yi danañ ci bàyyi nga wax ci alhamdulilah waaw mbirum ñoo ngi jaale eh, mbokk moom nga xam ne mooy Iddi ak bokkam ak sëriñ boobu ñu sëñ xanaa am na ko ñu defaat dem ba Espagne eh, ak fii yooyu bëri na waaye nag eh, yàlla da waxoon nañu waxal nañu loolu ba tàmbali ba neewoon nañu bakkan bu ne noppalu faatu ba tam waxoon nañu ci sóoratu Luqmaan ne nit xamul fu muy faatoo yàlla xam fu mu foofa kon fañ war a demee lañ deme saa yóbbu leen waaye demin wa lañu lañ wax demin wa demin wa euh, am nañu yaakaar ci saa borom yërëm leen baax a baax ndax euh, ak tooñ la te yéen it waxoon suñ yàlla waxoon loolu yéen waxoon na ne ku jóg di di dem di di jihaati yàlla te jihaat euh, mën ko firinu ne saa moom la fa yàlla dana defal ay kii yu bëri bëri ku ku ñu rey. ngir ñoŋal sa alal ak sa sa der ak sa nangam nangam saxit nga yépp kon am na yaakaar ci ñoom saaba yàlla na yàlla na wàcc ci ñoom waaye eh, dafa am loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel noonu dafa am baat boo xam ne dafa koy wax su ne baat bu man gawuma ko baatu raciste gawuma ko lu ñu sànni ci yow la bëgg nga xeeb sa bopp man xaw ma ne res am na ma ne la ñaara am tubaab ba naan la dangaa daa raciste ba nga naan dafa raciste wala bu lay tooñ boo demee këram da nga fekk ba am lu lu ko lu manqué ci moom lu moom am lu manqué bëgg laa matali mat ki mat imaginel ku njëloon nañu tabax ci am ndox nga nekk fa jën wu juddoo ci ndox yaakaar ni jën wu juddoo ci ndox soo génnee ci jëri mu faatu jëri amut ndox mu nekk ci ndox jàppale ndox rek am tubaab ba nga xam ne bii ma ngay dund ci lam nekk am jàmm nekk ci dund ga euh, te tabaxu la nga xam ne moom euh, fa mu nekk ci kaw la mm-hmm. bu génnee day jàpp ne yow mi yaa ngi di ngeen dund kon du la taxañ da jàpp ne yaa ngi dund gu neex-neex moom xam moom xamul leneen mm-hmm. ka xam ne ma ngi ci la suufee xamul dara lu luñ lu wan su lu séenee bëgg ay problème am ci yow mi moo tax may tooñ yow mi nga xam ne yow a yow da xam ne yow a yow ndax xam nga la nga bàyyi sa kër ak la nga doon soo ko xamee rek ku la doo am problème yu ci bëri xuloo ko indi wala meneen lu wuteeg lam Italie loolu moom leneen la waaye 70 euh, pour cent yi ci Sénégalais yi bu tubaab ne xëy sax mu ne kii sax si tas tàmbali xuloo xamal ne raciste amut góob ma ko man tubaab la ñu jël tubaab yi ko jël sànni nañu ko ñu ci nekk di nga nga fi te ñun xam nañ ñoo ñan damaa wax ko démb damaa ñëw ci benn hôtel bokk taal bi mu taw ba nag ñu dugg si. bi ñëwee bëgg a toog ci euh, salle d'attente bi ma leen jëloon toog ci bank yi ñu ne ah déedéet déet ma ne déedéet dugg leen ne leen fii ma laaj leen question ne leen dal tubaab yi ak seen dàll yi ko kan moo gën ñu ne ma ah tubaab ñoo gën seen dàll waaw nag bu tubaab yi gënee dal tubaab yi yéen ngi yéen gën tubaab yi te fii dal tubaab yi toog kon kon yéen fu nga toog yéen yéen wax yéenay gën ci nit ñi kon tubaab yi gën ci nag fii tubaab seen dàll yi ñu fi toog ngoog am déet kon li ñu war mooy ñu xam ñooy ñan te ba noppi soppi leen am na ko ma nekk léegi nekk bu am solo bu am solo ñu waxtaan ci loolu maa ngi mu ne ma dafa am fu mu doon liggéeyee yaakaar mu doon liggéeyee tubaab bi di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool ba sàkk mu ne ko ban religion nga bokk mu ne ko man judit la musulman la bi mu ko waxee tubaab bi xool jikkoom rek di xool jikkoom di xool jikkoom ba ne ko keroog ne def noonu laal ci bunt bi police yi dañ ñëw ne ko da nga fuy teggi tubaab bi ne ko dugal sama biir police di fa jaay tubaab bi ne ko nag man du ma naan du ma tux du ma def dara loo xam ne lii lu bor la xanaa man fu ma jëm waaju ne ko nag lii mooy kii waxoo shahadaat yi so doon leer bu ci sosam doo mën am ci lu baax loolee hmm? waaw loolu waaye loolu sax leneen la waaye la ca la ca daw yaram mooy neen dafa am bis dafa am bis mu toog mais mu toog ay sénégalais ñëw fa ab sénégalais ñëw fa yor cigarette du tox tubaab bi seet ko ni ah, mi ngi tox di lu tax muy tox xool wax ji sëñ bi ne kii kon kii kon maa ko gën ndax moom mi ngi tox taman du ma tox du ma naan kon wax ju ma infraction ju ma ju ma frappé la joo xam ne ji sénégalais yëpp ko war a dégg ndax waa ji Ibou na ma tubaab bi dane ko ñun liñ bañ ku ñu roy dañoo bañ ku ñëw di ñu roy kon ñoom bëgg nañ bëgg bëgg nañ ko leen soppi waaye bëgg nañ ko leen roy soppi leen nag mooy nam def moom ba tubaab bi di jaayee seen biir place seen biir banque seen biir dafa ba noppi ne ko euh, kii sénégalais la du sénégalais ndax góor tamit ngi tox te man du ma tox kii maa ko gën kon tubaab bi war na ne moo kon moo gën sénégalais bi ndax tox ga muy tox rek kon war nañ ñun bàyyi xel loolu ba fuñ nekk xam ne ñañ am kenn amu ko suñ fa loo xam ne suñ tubaab kenn amu ko amul fenn ko amul fenn nag te yow amoo fenn da ngay fexe ba doo doo def lenn lu ñuy lay xeebe sëñ Tuubaa waxoon na ne waxoon na ne képp ku ñuy tudd di ma tudd boo ko waxee nag waxul am seex ak suñ seex mi ñaari seex yi déedéet ku bokk ci ku xam ne bu la xoolee xool sëñ Tuubaa ni yow rek. waaw sëñ Tuubaa mas naa wax ne ci nett li bu ma nett li wax ne képp kuñ may tudd di la tudd nga xam ne. bu ñu gisee rek sëñ Tuubaa di dem dem seen xel dem sëñ Tuubaa nga def lu ñu may xeebe danaa ko yool ak yow yow xiyam moo ci am solo danaa ko yow yow xiyam nga def lu ñu may xeebe te tudd sëñ Tuubaa tudd la doon rek moo jur sa bàyyi wala moo jur sa nangam déedéet képp ko ne aslamtu nafsi rek bu ñu sëñ Tuubaa tudd am nga doonam murit waa nga doonam Sénégal sax ndax senegal yëpp suñu Tuubaa la ñu ndax sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa la kon doomu Sénégal bu ne. war naa feer sëñ Tuba kon war naa def lu feer boo xam ne bii ëllëg bu jàkkaarloo sëñ Tuba di maamam du si kanamam nee nag ku def loo xam ne li ko mel noonu ñooy tudd ma tudd te fuñ ñëpp Sénégalais nen xanaa murid la wala nangam nangam la sëñ Tuba la ci bàyyi xel mu ne ñooñee nag ku ci def lu ñu may xeebe man naa ko lay ma xam ak yow te lay suñ lay suñ Tuba yow xeeb moom lay suñ leen ci yoon ci yoon mosal naa sagal ko yow xeeb moo gën sagal ko sagal ko nag mooy bu ñu demee ba ñuy ramu ramu ñett rek la ñett dafay nekk yoon am jullit bi dëggal naafeq bi ak yéefar bi ñaar ñi xam ne fu ñu jëm jur bi xam ne fu ñu jëm yéefar bi xam ñu xam ne nag mu dab di benn zaag lay la lay la lay la kooku la ñuy seet ay mbiram mooy la ñuy moom la ñuy nangam moom la ñuy ràmm ba ñuy ràmm nag ñay ràmm doon ci waa këram ba ne anam mu ne du moom day loolu mooy sag ba yàlla nañu ko defal li ci topp mooy li nga wax ci eh, mat yi am wala boog faa yi am ci ci ci réew mi ca kii damay gëm ne du ma ne déet damay gëm ne gouvernement yi ñu ngi koy wax ci suuf mën naa am waaye leeru ma waaye lu mën a am li ma gis ñi nga xam ne moom la gouvernement yi di def yeneen gouvernement yi li def war na suñu laalee seenu njaboot ñu génn wax ne nangam ak nangam waaye gëm naa ne gëm naa ne li ma xam ci sénégalais ak nangam nangam ña ngi koy def suuf ña ngay wax suuf bëgg a def nangam ak nangam mën naa am dama gëm dama gëm man la yaakaar waaye nag dalal xel yi nit ñi baax na ci. ba nit ñi xam ne kat am nañ kilifa waaw damaa demut Italie ba xam ba xam autorité nekk fa dem nañ fa wala déet te jotuma fa kenn laaj ko waaye xam naa ne dalal xel nit ñi baax na ci ba xam nit kat bu fekkee ne bu génnee tiit bu duggee ci këram tiit kon yow mi kilifa wan nga ko dalal xel na kat lii kat mooy nangam nangam ba tax na su mel ni ametee mere ñaan ñoom hmm, buñ ma nee wan nit ñi ne kat naqaru nañ ko. donte yaakaar naa ne ministre bi génn wax yu mel noonu waaye euh, dalal xel ñaar baax na ci lool lool moo war suñu kàddu gi ñuy wax nii ñun kat na naqaru nañ ko di wax ne kat ne euh, la ko waral xam nañ ko ndax waa kat li ñu wax moom dafa dafa yomb doone kat daa bëggoon a xaru bëggoon a xaru te ñëmuut a xaru mu bëgg a kenn dem tëdd kaso loolu doy war la jaroon na moom Sénégal gépp def deuil national boo xam ne bii wàcc drapeau bi wàcc lépp lu ñu am Sénégal war ko Italie woo ambassade Italie bi wax moom loolu moom jar na ko ndax kii la wax daa doy waar ndax ñu mel ni ñoo mbari la moo xam ne dañoo war rey daa dem tudd kaso yorul mën na waaye nag yàlla na sama jàppale ba mu yem fii yàlla na borom dëggal bañ mën koo bañ bañ ko defal lu mel nii te mën koo fayee suñu bopp wax suñu Fallu lu naqaru la lu metti la ñu dawaat di jaale Sénégal gépp jaale ko ci bi ko réew mi ak suñu kilifa yi fa nekk yëpp ak njabootu Idi mu faatu ak sëñ boobu ki fa Espagne ñoo leen ko jaale bu baax baax ñaan sama borom mu yóbbu leen àjjana boo leen soodaa yi nga xam ne wax na leen kat ku génn nam ko waxe woon dafa ñu loola te dëgëral suñu tànk yi baax a baax te yokk fan yi ak wér yi te mosul ci lépp luy lore lépp loo xam ne day taxa ñu jóg suñ Tuubaa yi nga xam ne seen yi ngeen def nii yàlla na ceel jàpp ndax lu am solo la koo xam ne da nga waroon a fay paas bind say kayit di sànni foo fekk Sénégal la jox ko ne ko lii laa lii laa gëm defal lii defal defal lii kenn ñëw ne la wax nga wax si nit ñëpp mën ko dégg yàlla la jàppale te wax ji yàlla nekk wax joo xam ne wax ñu dégg la te mu yàlla nga topp te ànd ak lañ ci jublu in uriidu illal islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu salaamaaleykum